ak yéen ñi bokki jullit yëpp ak fu ñu mën a ne. di siyaare te di leen balu àq. maa ngi leen di siyaare te di leen balu àq. di bale àq. tey bale àq. tey fàttali sama bopp. tey fàttali sama bopp. di leen fàttali. di leen fàttali. li nu fi indi bàyyi nu fi. li nu fi indi te bàyyi nu fi. yàlla sunu borom. ñu yàlla sunu borom. wala takunu kallati nasulaa fa ansihum anfusahum. wala fa ansihum noo ngi ñaan nag. noo ngi ñaan nag. maa ngi leen di sant itam. maa ngi leen di sant itam. tuub. tuub. tuub jëm ci yàlla sunu borom. tuub jëm ci yàlla sunu borom. waxtu yi waxtoom la lool. waxtu yi waxtoom la lool. waxtu yi waxtoom la lool. borom moom. te sunu borom moom. li mu diggee li mu diggee woon. ko wóote mukk. bu ko wóote muk moo ni ku ko tuubal mu jéggal la. moo ne ku ko tuubal mu jéggal la. mu ñaan nag mu jéggal nu. noo ngi ñaan nag mu jéggal nu. maa ngi sàkk mu ñu def tawassul ci ci tuub bi. maa ngi sàkku it nu def tawasulu ci tuub gi. tawasulu gi nag moo di. tawasulu gi nag moo di. di sàkk sarax. di sàkk sarax. sarax soo xam ne tawasulu ci tuubal suñu borom rek lañ ciy jublu. sarax soo xam ne tawasulu tuubal suñu borom rek lañ ciy jublu. sarax si nag bu ko waaye bu ci xeeb waaye xeeb dara bu ci waaye yéem dara. sarax si nag bu ci waaye xeeb dara bu ci waay yéem dara. te fu ñu ko dajalee itam nañ seet ñi ko gën a lot. te fu ñu ko dajalee it nañ seet ñi gën a lot. te ñu leen ak jaamu yàlla. te ñu leen ak jaamu yàlla. ñu leen ko jëm ci ñoom. ñu fab ko jëmee ko ci ñoom. noo ngi ñaan nag ngi ñaan itam sunu borom defal na ci tawféex. noo ngi ñaan itam sunu borom dafa na ci tawféex. ci jéggulu gi jéggulu gi. ak ci jéggulu gi. mu nangul ko. mu nangul nu ko. xéewalam yu bari yi nga xam ne dafa digle ko laajit. xéewalam yu bari yi nga xam ne dafa digle ko ko laajit. noo ko ciy laaj. noo ko ciy laaj. xéewalam yi. ci xéewalam yi. ak ngëneelam gi. ak ngëneelam yi. ak ndimbalam yi. ak ndimbalam yi. maa ngi xamal bokk bokk jullit yëpp nag. maa ngi xamal bokk jullit yëpp nag ne. maa ngi jokk bokk lislaam gi. maa ngi jokk bokk lislaam gi. képp ku ma bokkal lislaam. képp ku ma bokk lislaam. maa ngi jokk bokk gi ci yow. maa ngi jokk bokk gi ci yow. li may waxee sama bopp laay jublu laay wax nag sama bopp laay njëkkee. waaye nag ñun ñëpp nag noo ko bokk. waaye nag ñun ñëpp nag noo ko bokk. fàttaliku sunu borom daal. fàttaliku sunu borom daal. bëgg naa def ko bëgg naa nu def ko lool. tawasul ci daan gi laaj gi ñu koy laaj ñu def ci tawasul def ci tawasul ak tuubal hmm. laaj gi ñu koy laaj itam. gi ñu koy laaj itam. ak tuubal gi. ak tuubal gi. nu tawasuloo jëm ci moom. nu tawasuloo jëm ci moom. sàkk sarax yooyu. muy sàkk sarax yooyu. waaw ku ko mën daal bëgg na def ko kenn ku waaye daal bëgg na mu nga def ko kenn loo ca man rawatina ci taalibe yu murid yi nag. rawatina nag ci taalibe yu yi nag. maa ngi leen di digal bu wóor a wóor. maa ngi leen di digal yéen bu wóor a wóor. te it bëgg ñu jàng alxuraan boole ci tawasul yi. te bëgg ñu jàng alxuraan boole ko ci tawasul yi. lu waaye man ci ay kaamil na ko def. lu waaye man ci ay kaamil na ko def. def ko tawasulu. def ko tawasulu. tuubal suñu borom. di tuubal suñu borom. ñu jégalu ko. te jégalu ko. Ah, am na lu sëñ Tuubaa waxat am na lu sëñ Tuubaa waxat nag. doomu aadama ju